forme, ñaar xeex na ñoom ñaar Sa na ko ñoom ñaar jéggi na si ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na ñu bëggoon nga defal ñu benn analyse ci combat ba nga xamante ne bii Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar muy combat Tapha Tine Boy tey boo ñu doon defal analyse ban jàngat nga gisee boobu combat. non combat Tapha Tine Boy Niang bu nar a neex lay doon ndaxte ñaari bërikat lañu te ku nekk itamit yàkkamtewul dara ku nekk combat bi daf kaa war a yóbbu fu sori Tapha Tine daa soxla combat bi Boy Niang daa soxla combat bi kon ku nekk itamit doole moo ko war. te gémmuma ko wàññi poids seen diggante de. waru cee wàññi poids. mukk combat bu metti la kon boo ñaa force la war a yóbbu. moo tax nga ne bu metti la nar a doon. xam nga tey tafaatin yombul amaana ñun pikin lañu nekk mais tafaatin yombul xam nga lu tax yombul doole la daa am doole. doole dafa soxor. dafa mun a bëre gars yi ci bëre ci xeex bi rek la ñuy xool. mais Boy Niang am nañ ci ñoom yaakaar am nañ ci moom yaakaar boo xamante ne suñu xel dal na ci moom ñu ngi koy ñaanal itamit suñu borom may may ko ndam bu sedd guy waaw. Boy Niang lan mooy avantage am ci combat bi. avantage am mu ngi koy gis naa ko ci moom de. doole ji mu am. waaw. mais taf booy booy Boy Niang ëppul tafaatin doole. ëppul tafaatin doole. Mhm. mais Boy Niang bu liggéeyee rek dina daan tafaa. Hmm? si kattanu borom bi. foo teg loolu. ci mun a bëreem. Hmm? ci mun a bëreem laa ko teg te daa gëm boppam encore hmm? ku am pas pas pas pas la ci lu muy def waaw. boo ko yóbbu woon lan nga koy wax mu bëre day xeex wala day day xaar. lu mu ko lu combat bi laaj mu def ko xam nga combat bi moom ah munoo focaliser combat bi ci xeex lay nekk comme ci bëre lay nekk mais yàgg yàgg ci bëre lay jeexee. waaw loolu mooy avantage bu mais xeex bi kese jëmal daalul Tapha yàgg yàgg si bëre bi lay jeexee. ñu gis Tapha Tine nekk mbër ma nga xam ne kuy bëre moom faaw mu tuuse la. waaw loolu normal la ndaxte itamit relance bi itamit day compter. def ci jouer mm-hmm. te moom itamit daa mun a xeex. Mm-hmm. te pour mu tuuse la daa yomb mais Boy Niang nekkul ragal. Mm-hmm. bu ko tuusee mu patiner <laughs> koy wax xam booy ñaa mbër la ma nga xamante ne bii day xool ko day xool ko day xam fu ko ba billaahi moo tax itamit combat bu neex la am. combat bu neex la billaahi. ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor suuf attention Sa Thiès ak Boy ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès